woteeloon jomaay bëgguñu woon a woteel jomaay usmaan Sonko lañ bëggoon a woteel ñu gàllankoor ko mu ne kon nag Sonkoy jomaay jomaay mooy Sonko waaye ak ku mën a taxaw ñu woteel jomaay jomaay warte déglu Sonko boppam rek la war a déglu ak yoon kon man en tant que koo xam ne dama yor parti politique muy front des alliances patriotiques ñu bokkak ak waa Pastef ñu bokk ak ñoom patriotique bi te ñoo leen ci mag ñun ñoo ci jiitu fii Sénégal am na yeneen parti patriotique waaye benn jiituwu ci fab suñ bos kon danañ wax ne pour réew mi mën a amaat jàmm nañ defaat wate bu bees bu ñu wateelee Sonko Sonko nekk président di defal boppam au lieu muy sant keneen mu di ko defal bu ñu wateelee keneen ñu xam ne kooku ñu wateel moom du déglu kenn ci li muy def mu jëm ci réew mi lu muy yoon ak loo xam ne du wóoroo ak intérêt réew mi bi ci des itam am na coow lu ñu fi indi woon tudd ci ndaw suñu wax aji saar ay waajuram nekk taalibi ci kër gi man en tant koo xam ne kilifa ndaw soo solaa damay jël sama responsabilité may ko sonko takkal naa ko ko may naa ko ko waa du ngeen yëngal seen loxo yi sax waaw ah kay waaw do tuuti bokk waaw ndax benn en ah, kay ndax benn daf koy lew daf koy lew bu bëggee mu bësal ko mën na koo bësal fekk yaramam dagan ko ba mën koo bësal bu defee ay graisse yeew ak yooyu yëpp dootu ko soxla bu ko defee dem ndaw si comme xas nañ ko ko ba may mënatu koo jàpp ndax kenn mënta jàpp sa jabar lii nag dama koo wax pour bëgg apaiser réew mi réew mi nekk ci jàmm nekk ci cell coow li bari na te li jaru ko kon nag lenn ngi noonu ci lu bari loo xam ne danañ ko gën a tasaare gën koo faram fàcce may wax ne may wax ne waa jooju nga xam ne doon na wax ay wax yu ñaaw jëmale ko ci Touba ak Serigne Touba ak ay affaire maçonnerie man yéen ñëpp xam ngeen ne murid yi ku leen laal laal nga ma ndax sama doomoo ngi nii di Ahmadou Bamba ne ci kër gi te nit mënoo koo bañ ba pare di ko tuddee sa doom waaye ma bëgg leen a wax yéen ñëpp murid yi ne ngeen ko seede waaw mënuma euh, wax ji ma war bëgg a wax waa jooju doon wax dara jëmale ko Touba. mënuma wax baat yi nga xam ne ay woyu dañ koy wax waaye daal naa leen wax ñetti yoon ne wolofal naa jëmale ci moom wolofal naa jëmee ko ci moom wolofal naa jëmee ko ci ñoom wasalaam